ñuy suivre saa su nekk ci Bepa comme ni ñu amee habitude di leen ko defala saa su nekk di leen indil seen xibaar te nag dañ koy daal di ubbee ak famille Pouye bi nekk fële na la ci waagu Njaay ñoom nag ginnaaw bañ leen génnee seen kër huissier génnee leen seen bagage yëpp nekk ci biti ñu fay lekkee di fa naanee dafa nelawee nekk na lu yéem askan bi lool boobu ba tey nag ñu ci bari ñoo ngi doon def euh, téléthon ngir jàppale leen am na ci sax ab ndaw suñu woon da leen di abal kër ñu nekk fa ba keroog ñuy régler seen problème. tey nag kii nii di ministre de l' intérieur Aly Ngouille Ndiaye mu moo prendre en charge l' affaire jël na famille Pouye boobu daal di am fu mu leen yóbbu ngir régler li nga xamante ni rek moom moo di situation bi. ngir mën a xam fu dëgg gi féete bu dee famille bi ñoom moom kër gi dina leen bàyyi ñu toog fa waaye bu fekkente ni tamit waa ji leen génnee bëccëgu ndara kàmm moom moo ko moom tamit dina ko delloo këram. daal di wéyal suñuy xibaax ci li xew fële na la ca Medina gis nañ ni depuis ba jàngoro yo coronavirus bi tàmbalee ba tey te suñu njiitum réew dégle li nga xamante ni moom moo di état d'urgence bi ak couvre-feu bi ndaw yi Medina yu ci bari respecté wuñu mesures yi nga xamante ni suñu njiitum réew jël na ko. ba tax na nag gis nañ ni bekk de mooy njaay ginnaaw ba ab débiteur yi doon lakk ñu ci bari profité nañu daal di génn ci mbedd yi di jubilé di def la leen saf waaye tamit kër gi nga xamante ni fa la jàngoro yu coronavirus bi amoon ñu ci bari ci ñoom génn nañu di jubilé foofu naan dañ leen di tàcc mu nekk loo xamante ni nag ministre de l'intérieur Aly nguy Ndiaye jël na ci ay mesures am nee na dootul mayeti leen benn ndaw Médina ñuy ñàkk a li nga xamante ni moom moo di couvre-feu bi tax na sax démb lu toll ci quatre cinq ndawi Médina yoon teg na leen loxo ba yóbbu leen ci kaso bi waaye bu ñu fàttee tamit ki nga xamante ni moom moo di Bamba nekk meeru Médina pare na pour defante ak ndawu Médina yi ndax respecté wuñu benn yoon nguur gi waaye tamit respecté wuñu autorité yi nga xamante ni ñoo ngi remuer CLTA ngir jëlee fi jàngoro ji ginnaaw ba mu gisee lu toll ci centaine de jeunes yoo xamante ni ñoo ngi nekk fële na la ci rue 22 jege loolu kër gi jàngoro ji amoon à 50 mètres. loolu nag nekk na lu tiital loolu meeru Médina bi ba tax na jël na ci ay mesures moom ak ministre de l'intérieur. ñu ñëwee ci wàllum sport Baba Tandian mi nekkoon président fédération sénégalaise bu basketball moom nag dañ ko doon jiñ baaraamu tuuma ni day yàq daru fédération bi maanaam daal am na yeneen yu njàcc yoo xamante ni moom Baba Tandian mi ngi ko doon amal ba tax na nag coow topp na ko lool jamono ji ñuy waxee ak yéen aj nañ ko lu toll ci 10 ans yoo xamante ni amatul benn affaire. fédération boobee loolu nag waral na moom mu daal di dem porte ji plainte pour diffamation maanaam ñi nga xamante ne ñoo nekk ci ginnaawam ba pare di yàq daram rawatina nag ñu daal di koy complété ba jëlee ko ci fédération bi loolu waral na kii nii di maître El Hadj Diouf jàpp nañu li daal ab kawtef la ndax depuis 2013 ba suñu joonu yàlla tey jii ñoo ngi doon jéemal ki nga xamante ni moom moo di Baba Tandian mënu ci ñu ci moom dara jamono ji nag ñu koy ji ay baaraamu tuuma rien que pour mën koo génne ci fédération boobee loolu waral na nag waa gendarmerie convoqué Ibrahima Niang mi nga xamante ni nag bokk na ci ñu ko doon jiiñ baaraamu tuuma yooyu. ñu daal di wéyal suñuy xibaar ci kawteef bi nga xamante ni moom moo xewoon ci cité Dalifort benn waay bu doon wuyoo ci turu Babacar Mbaye Samb nekkoon directeur d'approvisionnement ci benn société bu ñuy woowee Sonia moom nag lañ ñu woon dafa xaru maanaam dafa daanoo deuxième étage daal di daanoo boobu ba tey nag nekk na loo xamante ni ñu dëkk ca Dalifort mënuñu koo dékku ndax jikko yi nga xamante ni xam nañ ko ci Babacar mbay Samb mooy nit bu yiw nit bu am diine nit bu amul l'islam benn wayjur boo xamante ni amoon na lu toll ci euh, ñetti doom donc mënuñu concevoir que ni moom dafa jékki-jékki xaru rek ci maaniforo waaye lu ci mënti am daal nañ jàpp ni enquête bi mi ngi ci loxol yoon lépp lu ci war dinañ ko def ñu delluwaat ci ak yéen. juróomeelu nit bi nga xamante ni moom moo ñàkk bakkanam ci jàngoro yu coronavirus bi doon wuyoo ci turu Momar Gueye moom nag nee ñu ni mu def ba am jàngoro bi mooy que ni benn doomam bu doon liggéey ca port tàng lool euh, ci yaram bi ak yeneen i symptôme loolu nag ñu daan ko da nga tooy da nga sonn ñu daal di koy frotter bàyyi ko mu tëdd waaye buñ ci tegee giir gu néew ci la dem hôpital ñu daal di koy wax ni euh, doomam bu góor boobu am na jàngoro yu bi moom tamit ci lañ ko defal test mu daal di positif Momar Gueye ñu daal di koy internet ci hôpital euh, bu Fann doom ji tamit daal di nekk ci hôpital bu Guédiawaye teguñu ci ak diir moom Momar Gueye mu daal di ñàkk bakkanam famille bi ñu daal leen di confiné doomam bu góor daal génn moom dong nag moom moo dem jébbali way juróom bu góor bi suñu borom di ko ñaanal yàlla rek fa mu jëm gënal ko fa mu jóge te jàngoro yu coronavirus bi daal di yem fii daal di fiy jeexee tàkk nombre de morts yi nga xamante ni Sénégal moom lañ jot a am yal na leen ci yàlla génne ak jàmm. bu ñuy wax ci jàngoro yu coronavirus kii nii di Cheikh Modou Kara yëkkati na ci ay kàddoom di wax di def promesse boo xamante ni que jàngoro ji d'ici semaine prochaine incha allah kenn dootu ko déggati maanaam benn cas dootul amati fii nii ci Sénégal. Sall moom daal mu nekk kàddu yoo xamante ni euh, Cheikh Modou Kara yëkkati na ko di da ko dalalee xelu askan bi waaye tamit am ci certitude bu baax que ni lii nii di jàngoro ji dootu fi taree neeti ak yeneen i révélation yoo xamante ni def na ko ci benn interview bu mu doon amal ak Dakar ak. waaye jamono ji cas communautaire yi tiital na askan bi loolu war loolu waral na kii nii di xalifa général des Mourides uh, daal di jox ndigal autorité yi nekk ci Touba pour ñu tëj marché Ocass bi nga xamante ni am na lu toll ci sept cas communautaire mu nekk loo xamante ni nag jaaxal na askan bi lool ab marché boo xamante ni suba ba ngoon na nit ñi dañuy xëy di ko fréquenter. mu am ay cas communautaire loolu waral na xalif général bi daal di ciy jël ay mesures am na mu gën a gaawee waral na sax kii nii di ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye daal di jël benn décision que léegi takk masque obligation lay doon maanaam képp koo xamante ni rek da ngay génn ak fooy mënti dem bu fekkante ni defoo ko tamit mën nañ la tëj lu toll ci un mois de prison waaye tamit mën nañ la tegal ay amande yoo xamante ni dina diis gann loolu ci sa ndodd donc décision yi nga xamante ni moo fi mujjee wàcc ci jàngoro yu coronavirus bi mi ngi noonu wa bu ñu fàtte mukk ki nga xamante ni moo di euh, Baye Diouf nekk président du syndicat Marocain euh, fële na le ci Italie nee na nag depuis que suñu nguur njiitum réew euh, nee day jël ay millions jàppale ko sénégalais yi amee feebar bi ci itali euh, boobu ba tey ku ci nekk yaa ngi génne sa feebar ku ko ci amul woon tamit yaa ngi koy fësal. waaye tamit ñu ko ci amoon di ko ci nëbb tamit ñoom ñëpp euh, feeñ nañu ci jamono jile ba tax na nag muy waxaat rek sénégalais yi nekk fële na la ci Europe diaspora bi nañ xam ne njiitum réew gi xaalis bu muy yëkkati di leen ko jàppale pour seen wér-gu-yaram la waaye tamit pour ñu mën a génn ci jafe-jafe yi donc képp koo xamante ni am nga ko ci na nga génn ca bu teel waaye képp koo xamante ni tamit amoo ko bu fi créer maladie bi ndax nekkul loo xamante ni dañ koy caaxaane bu ko defee ñu daal di jàll ak ci xibaar yi màccoo ci jàngoro yu coronavirus bi fële na la ci bitim réew. ñu daal di koy ubbee ak réewum France nga xamante ni jamono jii dépassé nañu lu toll ci vingt mille morts ci jàngoro yu coronavirus bi waaye leneen li nga xamante ni ñoo ngi saytu muy baisse des cas maanaam daal ñi nga xamante ni seen situation critique na loolu fële na la ci réewum France amuñu woon ay matériel yu ñu leen prendre en charge ñoom jamono jii ñoo ngi wàññeeku bu baax a baax ñeneen ñi leen sonal mooy contact suivi ndax ay. ka euh, importé sax amatuñ ko presque ñoom réew mu France donc ñoo ngi dundee yaakaar pour mën a déconfiné waat euh, France ci ne mu gën a gaawee. leen leen ci Madagascar président bi génnee na benn remède boo xamante ni test ah, na ko ci ñaari nit yu amoon jàngoro yu coronavirus bi waaye gis na ci ay résultats yoo xamante ni c'est satisfaisant loolu waral na nag mu daal di ah, publier produit bi rek fas yéene di ko distribuer ci école yi ak ci kër yi pour que ñëpp daal di ci amoon nu mu gën a gaawee waaye bu mu fàtte ni tamit lii nii di produit bi président Madagascar bi daal di publier nekk na produit boo xamante ni ñoom daan nañ ci faj siburu waaye réewum Amérique ba tey ñoo ngi woyal di def li nga xamante ni moo di manifestation yi ngir ba ñëw confinement bi mu nekk loo xamante ni nag Donald Trump ànd na ci ñoom ñoom waaye gouverneur yi ba tey ñoo ngi koy kaas rek mu nekk ab baraada de boo xamante ni mi ngi dox diggante président gouverneur ak population ba ca nekk nga xamante ni dañoo lànk ba ñëw confiné wu malgré nombre de morts yi nga xamante ni ñoo ngi koy am saa su nekk. waaye bu ñu dellu suwaatee ci réewum Sénégal tey ci 21 avril 2020 bi ginnaaw ba ñu amalee lu tollu ci 466 tests 35 ci ñoom ñoo amee jàngoro yu coronavirus bi 34 yi nekk contact suivi kenn ci ñoom nekk contact communautaire dëkk ca ñaari tali ñu am sept personnes yoo xamante ni seen wér yaram mucc na ayëpp ba ñu ñibbiwaat seen kër yi waaye bu ñu defee bilan bi depuis le 2 mars ba suñu joonu yàlla tey jii lu toll ci 412 personnes amee nañu jàngoro yu coronavirus bi fii nii ci Sénégal juróomi nit ñàkk ci seen bakkan benn nit bu ñu évacué 242 personnes yoo xamante ni wér nañu ba delluwaat seen kër yi waaye tamit 164 personnes ñoo ngi su traitement donc mbokk yi ñoo ko gisandoo li waral ministre de l'intérieur njuutum réew yi ak ñëpp di rey seen bopp ngir jàngoro bi mën fee jógee cas communautaire yaa ngi noonu saay bu ñu xëyee di ci am tey nag nombre de personne bi nga xamante ni am nañu jàngoro ji takk na lool depuis ba virus bi commencé ba tey tey jii ci 21 avril bi moo nekk bés bi nga xamante ni moom moo am plus de personnes yu am jàngoro yu coronavirus bi maanaam 35 personne loolu waral na nag képp koo xamante ni sant nañ la ci ngay takk masque war nga war nga koo forse la ko ak ñu ñàkk la ko forse yëpp waaye tamit ku ñu raxasal say loxo rek war nga koo def te xam ni sa wérgu uh, yaramu bopp la donc mbokk yi duñu jokk benn yoon di leen fàttali ci mesures sanitaires yi nga respecté tamit couvre-feu bi ndax gis nañ ni Sénégal uh, ñu ci bari ñoom ñoo ngi koy wéyee di ko di ko di defee ndigal waaye am na ci ñoo xam ni tamit ba tey bàyyiwuñu xel li nga xamante ni moom la autorité yi di digle ba tax na nag fii la ñuy yem yéen ci seen xibaaru Actunet di leen jaajëfal bu baax a baax mbokk yi di leen jox dig daje ba suba incha allah.